ñuy wax ne ñuy critiquer magistrats yi nga xam ñoo condamné Ousmane Sonko ñooñu ay magistrats du siège lañ ils sont censés être indépendants pourquoi nga leen di critiquer boobu mooy benn bi euh, ñaareel bi moom mooy euh, bu fekkee ne da nga ne procureur dafa il est trop puissant euh, que dafa dépendre si l'exécutif parce que euh, son supérieur hiérarchique c'est ministère de la justice léegi yow ban solution ngay apporter si loolu lan nga lan ban ban mécanisme moom lañ mën a teg pour que procureur dootul nekk un gars hyper puissant ba nga xamante ni mën a def liggéeyam de façon indépendante euh, ba mu bañ am influence si exécutif. exécutif waaw bu bu boo nee euh, les magistrats du siège dama ne amuñu indépendance j'ai pas dit ça dama ne peut-être euh, ci ay décisions de justice effectivement may nañ ñu ñu apprécier parce que la justice est rendue en notre nom lan moo waral mu am double degré de juridiction c'est parce que xam nañ ne kii mën na juum mhm. dans l'affaire Mame Mbaye Niang deux mois ñu demaat ba fële ñu ne 6 mois am na ñu ñu tëjoon affaire jeune Colobane vingt 20 dem appel ñu acquitté leen acquittement boobu day wane ne kële dafa juum parce que nit moom mooy def justice justice su yàlla moom moo parfaite mais bii amul perfection donc kon magistrat du siège donte am na indépendance président Wade waxoon na ko ku bëgg a am indépendance di nga ko am. parce que c'est un c'est une question de comportement maintenant yan saa yi mën nañ def décision yoo xamante ne man damay jàpp dañ juum. dañ juum wala dañ leen euh, wax def leen lii. non pas du tout da ragal wala. Euh, c'est-à-dire xam nga. Euh, da ngay jël man déglu naa la si yenn plateau yi waxoo loolu da tey da ngaa nuancé quoi boo xaw da nga ragal. xaw xam nga moo tax parfois gars yi dañuy bëgg du populisme. jeunes yi man fii fii laa ko waxee woon lu yàggul dara dire que ni justice sénégalaise lépp baaxul loolu loolu wax naxa saxan nag loolu du wax mhm. dara. Mhm. parce que da gis pratiquement sur. beaucoup de dossiers judiciaires nga jël ñeent ba ñeent parce que c'est une question pénale parce que ça engage euh, benn acteur politique mhm. mais li ma wax ci mbirum Ousmane Sonko bu dee loolu nga bëgg ma dellu si waat mooy ne toutes les procédures engagées contre lui l'enjeu c'était ko bu mbokk bokk élection kenn laajul leneen le juge qui l'a condamné dañoo topp ah le juge qui mais amul benn preuve benn preuve bu ñu fa teg kon juge bi dafa def lu ko neex ci menace de mort ci dara mais juge bi dafa def lu ko Euh, sëñ bi nag xam nga boo dégloo boo dégloo. Ah, dañ lay tontu mais mënul mënul nit di wax li ma gëm. mooy viol menace de mort lan doon wax bañ demee gis nañ ne loolu dara amu ci de 9h ba 4h mooy ñu koy discuter kenn gisul preuve c'est le procureur encore ki nga xamante ne ci. exécutif ci ci wa te kooku ci exécutif la bokk. il exécute la politique pénale du gouvernement moom moo ko andi man dama jàpp ne. Moussa infraction moo tax Moussa ku euh, ku def ku def lu la décision ku ku nga xamante moo appliqué c'est le juge c'est pas le procureur. bien sûr dafay requérir après le juge moo appliqué. loolu moo am donc koo koy war a ki nga xam ne ki nga war a dal si kawam le juge c'est pas bul dal si kaw procureur bi. non procureur lay def état bi la fi nekkal. donc am na am na droit def lu am na droit requérir ko neex. xam nga euh, Pape boo laajee ba waaw da ngay déglu pour ñu tontu la. waaw allez-y juge bi bu procureur moom mooy désigné. Mhm. ne ko defal ma lii. donc kon l'infraction. procureur duñu ko defal ma lii de. defal nank rek. procureur duñu ko defal ma lii. procureur da koy ñaan defal nank rek sañ bi da ngay nag. tey dafa baax non mais damay dama lay wax aussi loolu mënuloo moo tax oustaz ne la sa xam-xam du bari parce que doo déglu ce n'est yàlla jox la ñaari nopp ak benn gémmiñ mooy li ngay déglu dafa war a ëpp li ngay wax da ngay déglu da ngay rek parce que temps bi dem boo laajtee je pense que ni bëgg a xam la mais da ngay laajte pour polémiquer tamit. ki nga xamante ne moom euh, moo joxe décision boobu noonu man dama jàpp ne décision boobu amul fu mu wéeku dama jàpp ne corruption de la jeunesse sax du infraction d'après ni ma liiree toute la législation. ko du sax infraction. ki nga xamante ne moom moo waxoon deux mois dafa dem en appel ñu ne ko sa deux mois yi nga waxoon amul kon ki waxoon corruption de la jeunesse suba mën na dem ñu ne ko lii nga wax amul. d'accord donc kon du du du euh, parole d'évangile du bible du courant du courant. léegi beneen beneen interpellation ah, bi sama perception nga ma laaj. voilà y euh, par rapport ak solution yi ngay apporter pour que. procureur bañ a am parce que c'est du système judiciaire le procureur dépendre euh, ci exécutif du système judiciaire yëpp dans les pays anglo-saxons par exemple euh, aux États-Unis procureur dañ koy fal mu am mandat bu clair boo xamante ne kenn mënalu ko daal ñenn ñi ne bu ñu dugg daal ci ay gouvernement des juges mais le conseil supérieur de la magistrature président de la république mën na fa génn procureur di fa nekk euh, avancement carrière magistrat yëpp instance boobu noonu di ko gérer sans pour autant mu am benn immixtion de l'exécutif ci biir parquet pré euh, gouvernement mën na décra euh, wax ban politique pénale la bëgg après dem yoonam. mise en mise bi. Mhm. mu nekk le conseil supérieur de la magistrature parce que du question procureur ci euh, ministre de la justice rek la dépendre moom mooy premier kii bi mais le président du conseil supérieur de la magistrature c' est le président de la république kon donc beneen émission bu ñu noonu ñaar yooyu yëpp mën nañ koo détaché moo tax bu ñuy wax naan ay créé yi